jaajëf jaa ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen 7 TV Youssoufa Niang moo nekk ci kaddu gi mbokk yi tey ñu seq waxtaan ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndiaye Youssou Ndiaye nag doom la ci honorable député Mame ma Diop nekk tamit wala bokk bokk ci ndaw ñi nga xamante ni bi dañuy jàppal tànk ministre bu fonction publique di maire Mbacké fa Ndiaye nuyu nan la ñoo ngi lay fay Youssou di nuyu mbokk internet yëpp mhm. di nuyu senegal gépp mhm. ak mbokki bawal mhm. di leen ziyaar di leen ndokkeel ci gàmm gi ñu jóge di ñaan suñu borom mu defal ñu ay xéewal defal ñu gudd fan bu ànd ak wér defal ko mbooleem jullit mhm. musal ñu ci cat làmmiñ balaa ak seytaane mhm. di sant yàlla mhm. di julli ci yonent bi sant Serigne Touba di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu aussi suñu mentor muy le ministre maire Galoba jërëjëf jërëjëf Youssou ñu door waxtaan wi rek waxtaan wi nag li ñu koy dooree mooy question yu njëkk question d' actualité ñu ñu seetlu ne barki Demba Ndiaye di altine ji la génn am na réunion conseil municipal bu amoon bi foofu nag ban fa teewee nemmeeku nañ fa xët wax digg dox diggoonte kii nga xam ne moom moo di Lamine Bara Gueye ak kii nga xam ne mooy maire Mbacké dox tamit ci Goumba Amar ak kii nga xam ne moom moo di maire Mbacké ndax mën nga ñuy ñëwaatal ci boobu réunion conseil municipal waaw Youssou maanaam réunion ba la fa amoon loolu mooy ay nit yoo xam ne amuñ tur bëgg tur parce que yaakaar naa ne ñaar ñooñu nga tudd ñëpp ci Mbàkke man sax di tudd seen tur xam na politique moo demee noonu mënta ñàkk muy Lamine Bara Gaye moomu nga tudd ak Gumba Amar maam tey ñooñu noonu yaakaar naa ne dañoo bëgg tur bëgg a créer seen bopp bëgg buzz bëgg ko jaaree ci loo xam ne nii fekk nañ ñu koy def ngir Mbàkke jëm kanam dèjà ñàkk respecté waa Mbàkke rek mënta weesu yow ñu fal la conseiller municipal jël la waa Mbàkke jël seeni ñu investir la ci liste waa Mbàkke jël seeni xob sànnil la ko nga ñëw yow nga ne amoo jotu waa Mbàkke ba tax na mënoo toog fekkee lay xew ca conseil municipal ba ne da ngay dem ba pare wax fa ba pare kon kooku yaakaar naa ne respecté woo waa Mbàkke un ba pare respecté woo ñu nekkoon ci conseil deuxièmement li ci topp mooy yuusu yaakaar naa ne kooku nga tudd muy Bara yi yaakaar naa ne mën nañ ko wax li naan persona non grata à Mbàkke Bara Gaye qu'est-ce qu'il signifie Bara yi bu dut ñi nekk Bara Gaye ñu bëri xamuñ ko Mbàkke xamuñ ko parce que leader la boo xam ne defu fi dara yor na ay ndombay tànk te jëriñut waa Mbàkke dara amul benn njëriñ ci Mbàkke nit mënta taxaw ne Bara yi avant muy nekk tey avant muy yor ndombal tànkam gi mu yor tey nga xam ne wax ak wax ju bon ak comme nii mu tàmm nii moo ko may maanaam mës naa def Mbàkke dara avant ba mu ko nekkee ndax mës naa def Mbàkke dara amul nit mënu ko wax mais mais est-ce que tamit Lamine Bara euh, dafa mel ni yéen a ngi si bi keroog est-ce que dóoru leen benn bi gën dem yoonam dafa mel ni coup politique la leen dóor. non xam nga loolu mooy amul finesse maam nit boo boo boo boo mënee joxe da ngay mën a encaisser déjà li wax noonu ak préparer ko Bara Gaye mooy koo xam ni day def lu ñaaw maam day jéem a diviser pour mieux régner. Bara Gaye tey bu xamoon ne nit contre na Gallo wala nit kii kat toog na gisatu ko dara da koy jéem a approché pour lu yàqal monsieur le ministre maire Gallo Ba te munu ko noonu lay doxalee maam dafa ñëw maam loolu yëfi ñàkk respect la rek yëfi xale yow mii tey jii yow boo ma posé question di nga am amabilité wu toog ba ma répondre la nga xam ne kat question bi nga ma posé lii moo tax nga soog a dem non seulement wax na waxi dof wax na waxi xale wax wax joo xam ne nii maam waxi wax wax ju dëgg la ba pare teg si ñëw posé ko pare jug naan damay dem lu toll ni conseil municipal respecté wul waa Mbàkke nam amee toog fa ba mën a muñ xaar conseil bi ba conseil bi tàmbali noonu la waroo woon a mën a toog xaar ñu tontu ko mu soog a dem fu muy dem. Mhm. mais tamit est-ce que équipe municipale bi rawatina maire euh, muy yëgal nit ñi dëgg-dëgg liy xew ci maire bi dafa mel ni loolu la ko Bara Gaye di reproché à chaque fois wax boobu day dikkaat lan mooy expliquer jafe-jafe boobu nga xam ne moom moo ngi dox diggante maire ak nga xam ne mooy ñenn ci ay conseillers. waaw Youssou loolu mooy wane ne maire adjoint maire buy taxaw di wax loolu loolu mooy wane ne defoo sa liggéey parce que chaque jour dañu jàngal ne il faut aller vers l'information il ne faut pas attendre l'information loolu yow journaliste xam nga ko chaque jour dañuy wax nañu nit day dem jëgmal information il faut aller vers l'information mais nit doo toog di xaar information liñ leen war a yëgal ñëw leen ko yëgal avant conseil ñu mën a def ci maire bi maire bi moom transparence dafay am lépp am fi waxuma la ñi ne conseillers municipaux waxuma la ñi nga xam ne ce sont des adjoints maires mais public waa Mbàkke maire bi lépp luñ ciy def maire bi mësta am tableau d'affichage ba mu ne maire ba léegi bi fi Gallo Ba ñëwee bi fi monsieur le ministre maire Gallo Ba ñëwee lay soog a am tableau d'affichage marché dañ koy affiché ni maire bi doxee fonctionnement bi budget bi tout dañ koo affiché kon yaakaar naa ne transparence foofu la mën a yem xam nga li ma waxante ni monsieur le ministre maire Gallo wax na ko leer na toogul di xaar kenn képp ku bëgg dem train gi tàkk na ñëwal ànd ak moom dugg ñu dem parce que du xaare moom day dem day liggéey mbàkkee ko ñor xam nga mais toog naan ay yëgaluñ ma lii yëgaluñ ma laa nan lañu lay yëgalee te doo ñëw ci maire bi di gëstu li fi xew yow même buñ la kiiwut da war a ñëw di gëstu li fi xew liñ la war a yëgal mooy bu conseil municipal waree am dinañ yónni ndaw sa kër jox la rapport bi wax la conseil municipal bi ordre du jour bi ci lan lay porté wax la lépp yaakaar naa ne loolu lañu war a yëgle ci maire yi. Mhm. mais adjoint maire buy toog naan yëguluñ ma parce que defoo sa liggéey. Mhm. mu mel dafa am kumba ay kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax na nañ ne troisième adjoint au maire Aliou Penda Diouf ñëw na wax li muy wax dem yoonam coow jibul Bara Gaye ñëw wax li muy wax jóg ngeen attaqué ko lan moo waral jëf jooju. waaw parce que wax yi bokkul. parce que wax yi dafa bokkul. moom dafa laaj rek. Balla Gaye dafa laaj rek or kay dafa wax. waaw mais waa d'accord parce que ku laaj. parce que Balla Gaye lim laaj mooy question yoo xam ne mooy li lay wax xam nga koo xam ne dafa ñëw ngir wax pour leeral. ak koo xam ne dafa ñëw ngir wax pour jaxase. kee dafa ñëw wax. kee dafa ñëw wax loo xam ne day leeral ñu xamal ko ne ko mu xam ne moom frustré wul. di leeralaat ne carrément mi ngi ci ginnaaw monsieur le ministre maire galo Ba tey mi ngi ci ginnaaw monsieur le ministre maire Gallo Ba ëllëg moom la àndal xam nga kooku dafa wax. yaakaar naa ne li mu wax xaarul moom comme ça kenn di ko tontoog yooyu noonu. ndax loolu amul woon sax waxul sax ci ordre du jour moom digganteem ak monsieur le ministre maire Gallo Ba la wax. mais kee dafa ñëw moom di wax ci loo xam ne nii poser ay questions. non seulement question yi mu posé. question yooyu noonu su soo des question yoo xam ne ce n'est pas pertinent pour un maire ce n'est pas pertinent moom euh, pour un euh, un adjoint maire du moins ba pare texte bu nekk loo xam ne waxaale fa waxu jaxase mais dafa waroon toog ñu tontu ko ñu ñëw ni tolluwaayu dëkk bi Mbacké Baol fi ñu toll ni tolluwaay li ndax seetlu nga ko waaw seetlu naa ko bu baax noo ko gisee ah ni ko ñëpp ni ko ñu bëri ci askan wi ñi am gis-gis bu baax gisee mm-hmm. parce que yaakaar naa ne Mbacké Baol mm-hmm. ku ko xamoon démb xam ko tey mm-hmm. xam fi mu toll. di fi jaar bëccëg. di fi jaar guddi nekk ci dëkk bi nag laa wax. parce que dëkk bi dafa bëri aussi yuusu ñu fi nekkul ñoo xam ne xamuñ li xew ci dëkk bi. yor seen làmmiñ di wax. mais Mbàkke Bawol yaakaar naa ne képp ku fi nekk. xam nga ne Mbàkke Bawol y a un grand changement à Mbàkke. donte ne nag Mbàkke dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am retard sur plusieurs plans. ndax changement yi ñuy wax bu ñu toogee di ko wax peut-être ku xamutoon mbàkkewu démb da nga yaakaar ne peut-être on travaille peu mais on travaille beaucoup parce que tey jii monsieur le ministre maire Gallo Ba mi nga xam ne moom la fi yàlla teg dafa nekk di liggéey moom li mu war a def ak di liggéey liggéeyu maire yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekkoon bu njëkk waroon koo def te defuñu ko muy ñaari liggéey ci moom ndax yaakaar naa ne ab dëkk muy wàllum électrification tal wàllum extension électricité yokkum courant mhm. ci ay dëkk yoo xam ne ba dëkk bi yokkoo yàgg na mhm. te mënuñoo jot ci courant mhm. adduction d'eau dëkk moom buy màgg dañoo war def yooyu waaye am na dëkk bi dafa màgg bu yàgg dëkk yooyu yàgg fee existe te mosuñoo am courant mosuñoo am ndox wàllum taal làmp yi xam nga li ma la waxante nii loolu yëpp buñ ci tolloo maam da ngay jàpp ne être ñii liggéey bi mais dëgg la liggéey boobu noonu ñooñu fi jiitu ñoo ko defutoon ñun ñëw di ko def ba pare ñëw war a defaat yeneen. mais Youssou yéen ñi ànd ak euh, ministre bu nekk maire Mbacké. te yaakaar naa ne aussi tamit dogguma la sax bala ngay ñëw sa question bi. Mhm. du loolu kese. Mhm. mais dëkk buñ koy tabax. Mhm. maam amut génn kër goo mës a xëy rek. ñu jox la caabi yi ne la am duggal. tabax bi day jaar yoon. nañ ko waxaale tamit beaucoup de chantiers sont de par la relation du ministre maire Gallo Ba parce que ay projet étatique la donte ne am na yoo xam ne nii maire bi sax du moo ko kii ay projet étatique la mais monsieur le ministre maire moo ko négocié de par ses mu ñëw fi lu ci mel ni maison de la jeunesse bi Mbàkke yàgg nañoo jooy stade stade bi amoon ay problèmes yu yàgg mënta pare tey ji yaakaar naa monsieur le ministre maire toogee yaakaar naa ne stade bi pare na ba yaakaar naa ne fi mu toll nii ay réglage yu tuutee tuutee des pour mu tijji xam nga li ma la waxante nii tey jii suñ euh, euh, centre de santé bii ñu amoon lu tool ni Mbàkke nga xam ne mënu ñoo am sax hôpital niveau un yaakaar naa ne monsieur le ministre maire Gallo Ba keroog li mu wax leer na lépp ay digge la lépp ay digge waaw maanaam am na ci loo xam ne du digge ndax yaakaar naa ne tey lancement appel d'offre mhm. muy maternité croix rouge mhm. pour Mbàkke mën a am maternité bu baax mhm. xam nga loolu du liggéey bu ñu demee mais gisaguñ ko bu appel d'offre bi génnee te gisaguñ ko waaw mais maanaam ci liggéey bi la boo xam nga tey yuusu tey Mbàkke danoo war a sant parce que y a un grand changement bu ñu ba Mbàkke di am ay marché ñu koy def lancement appel d'offre bi di ko dugal ci ay journal lu ci mel Le Soleil nga xam ne ñëpp a koy lire nga gis yoo xam ne nii ngeen di jéggalu ci publicité bi mais di gis ay journal lancement appel d'offre di am ñuy jël appel d'offre yooyu di ko am na changement. fii musuñ fee xam sax ne Mbacke mairie Mbacke daan na joxe ay marché. musuñ fee xam ne mairie Mbacke daan na joxe ay marché yuusu kon yaakaar naa ne mairie bi boo amee transparence xam nga li may am une bonne gestion yaakaar naa ne loolu war nañ cee sant. xam nga tey jii nii mairie Mbacke lu bëri lu fi amoon xam nga ne bu njëkk ay lobby moo fi amoon ak ay yoo xam ne ni yu kenn xamul la woon tey yaakaar naa ne lépp a leer naa ñi mais Youssou dafa jot fi nii Sénégalais yi nga xam ne war rawatina waa Mbacke yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñu dafa jot ñu xam dëgg-dëgg lan moo nekk si diggante maire Gallo Ba ak Abdou Mbacké Ndaw parce que bu ñu ko dégloo Abdou Mbacké Ndaw moom ne man jot naa ko téléphone mu ne ma 502 mille millions laa fi bàyyi ak këyit yu leer naññi mais Gallo Ba heure bu ñu ko laajee danaan Abdou Mbacké Ndaw wëcc fi xaalis est-ce ñoom ñaar ñu toog waa Mbacké jàkkaarloog ñoom kenn ku nekk wax fu xaalis Mbacké bi dugg. Youssou duñu toog duñu toog parce que am na loo xam ne bu ñu bëggoon a toog man mi topp ci ginnaaw monsieur le ministre maire mhm. man ma bañal ko monsieur le ministre maire Galaba. kon bëggu leen mu leer. parce que non non du question de bëgguñu leer de. Mhm. gis nga ñu nekkul nawle. Mhm. du ñu toog. monsieur le ministre maire yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ci ay déclaration am que ne musul wax loo xam ne nii maanaam loolu sottiwut bañ na ko ba danee bu may lijjanti dara. te loolu sotteegul du ma ci wax. li nga xam ne lijjanti naa ko ba jot ko ci état bi. ci loolu noonu laay wax. xam nga. Mhm. bokk nag nag koo xam ne nii maam lu mu la mës a wax xale yu ndaw yi xawaan sax lu mu la mës a wax ay waxu picc la. Mhm. lu mu la mës a wax jarta dóor sa doom ay waxu picc la. Mhm. monsieur le ministre maire Gallo nag. lu mu la mës a wax dëgg la. te ba pare teg si yuusu. tey jii am na ñoo xam ne nii nañ waxante dëgg. moroom ak moroom ak nawleeg nawle ñooy toog di wax. kii c'est un administrateur. xam nga. sorti de l'ENA bokk ci école bi gën a prestigieuse ci administration ci école Sénégal. xam nga li ma la waxante ni. il a fait ses preuves dans le pays parce que il a beaucoup travaillé. Galoba ça doit il doit et une fierté pour la jeunesse africaine. je du dis pas la jeunesse dama ko romb waxuma la nii la jeunesse mbackoise mais pour la jeunesse africaine. fierté continentale la. bëgg ko la question mu mel. parce que tey ji non damay àggali. parce que tey jii nit koo xam ne nii. da ngaa def say preuve ci dëkk bi. Mhm. Youssou DG yi bëri nañ fi. mais Gallo dafa def fierte Mbàkke fierté Sénégal fierté Afrique tey dañ ko jox ay milliards jël dëkk boo xam ne amul dara jox ko ñu jël SOGIP créer maam entreprise mu nekk un bébé bu juddu ñu créer ko teg ko ci ay loxoom euh, local sax moo ko utal entreprise ba bañ ko créer ay këyit lañ ko jox muy société général des infrastructures publiques mu réaliser six grands projets phares yoo xam ne nii ci Sénégal kon il fait partie des réalisateurs de des plus grands projets de l'état de l'état du Sénégal. xam nga li ma la xamante ni. réaliser ko avec pertinance xam nga li ma la ak une gestion transparente yaakaar naa ne ku romb jam ñaajo. gis Dakar Arena ku bu jam ñaaju gis stade Me Abdoulaye Wade ku romb jam ñaaju gis Radisson bu jam ñaajo ku romb jam ñaaju gis marché international bu jam ñaajo ku romb jam ñaajo gis port de gros porteurs bu jam ñaajo yaakaar naa ne xam ne Gallo Ba mi kàngam la ci Sénégal son nom est gravé en lettres d'or dans l'histoire du pays à jamais parce que il a beaucoup travaillé kon tey jii kooku noonu yaakaar naa ne dafa war a bokk ci ñi nga xam ne nii maanaam maam ci ñi gën a honoré ci dëkk bi. li ñëpp di wax nag ngeen neenaan moom dafa tabax dafa tabax jam ñaaju tabax Mbàkke tëkko mais yéen ñi ànd ak monsieur le maire ici est-ce que jarut yéen ndaw ñi ngeen xoo seen taxawaay parce que bi ci stade bi ci bu police ba fi ñu toll nii da amul benn journée boo xamante ne taxawal ngeen ko mu mel ni yéen da ngeen ko jiital ba pare taxaw seetaan ko loolu tamit bëgg nañ nga yëy ci yàbbi. waaw Youssou du taxaw seetaan Youssou. Mhm. monsieur le ministre maire Galaba. Mhm. mooy koo xam ne dafa am yërmande ci xale yi. Youssou li ma lay wax yaa ma gën a xam bëri na ñum jël fii ñetti pot lampe sax mënuñu ko. samp waaw mais mais mais mais am na ñum jël aussi. ba ñuy samp poto lampe jëlagu leen. am na ñum jël. ba ñuy samp poto lampe. Mhm. Mhm. te monsieur le ministre maire Gallo Ba li muy def. Mhm. yaakaaru ci kenn ndax da koo mën te da koo xam mhm. te Youssou yaakaar naa ne ñun daf ñuy tere mhm. ñuy def pour ay action politique action politique mooy loo xam ni def ko caméra ko pour bëgg wax pour wax daf ñuy tere loolu gis nga bañ fi def reboisement bi mhm. bañ fi def reboisement bi taxaw xam nga lan la ñu ci tegal bañ àndee projet bi ba pare dane ànd naa ci génn ndax lépp luy xam ne day defar dëkk ànd ci génn mais xam nga lan laay bañ andi fi ay garab samp ko mu dee te amut suivi lépp loo def na leen leer ne loolu noonu day am suivi xam nga li ma la waxante leneen ak leneen ak leneen gis nga garage bi ngay wax lañ fa def moo gën a tuuti ci poosam la jël jëlut ci poosu mairie jëlut àllu askan ci poosam la jël génne ko fexe ba garage ba di doxaat nga teg ci sa bët ma teg ci sama bët keneen ne waa Mbàkke yëpp teg ci seen bët yaakaar naa ne nag Mbàkke y'a plusieurs chantiers qui temps en cours muy maternité Croix-Rouge théâtre de verdure ak centre commercial bi loo xam ne nii maam Euh, plan yi pare na ba mm-hmm. plan 3D yi pare mm-hmm. bañ lancé appel d'offre bi ba nga xam ne gars yi soumissionné nañ mm-hmm. dépouillement moo ci des ñu xam ku gañ a bi yaakaar naa ne loolu noonu jaar na ci yoon li nga ñëwoon sànq nag ci monsieur Euh, euh, l'ancien maire bi fi xew. Mm-hmm. dafa am loo xam ne leeral ko monsieur ministre maire leeral na ko mais dama koy leeralaat. Mm-hmm. muy ay affaire di wax xaalis boo xam ne nii xaalisu jàmbur la. Mm-hmm. lu ci mel ni pakaseen. comme xaalis boo xam ne ñun moomuñ ko. maire Mbacke monsieur le ministre Garba li mu wax dafa leer. li nga xam ne Mbacke moo ko moom ci ay recettes muy ay juute yeneen ak yeneen bàyyi fi dërëm ay bor la fi bàyyi. les sa sont dee projet yoo xam ne ay pakaseen da ngay def sa benn projet yow kat da naan Mbacke lii laa bëgg nga ne lii laa bëgg a tabax. boo nee lii laa bëgg a tabax kat ñoom ñu xool projet bi buñ ko validé finance projet bi. Mm-hmm. mais mais dafa am leneen loo xam ne mu da cee xew ginnaaw diggante maire ak Lamine Bara Gueye ginnaaw diggante maire ak ancien maire Abdou Mbacké Ndaw dafa ak euh, ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy waa ODCAV ñoom neen stade bi pare dañ cee war a fubal maire ne stade bi pareegul dañuy il faut que ñu toog naa ko barki démb mu ne ñoo ko tabax il faut que ñu dañuy loolu ay ay kàddoom est-ce que en tant que maire premier magistrat de la ville war naa yëkkati loolu. mënoo ma génneel. Mhm. ci vidéo mhm. je parle. Mhm. Euh, maam ñëpp di ma déglu. Youssou maa ko fekkee. waaw mais dama ne. nga génneel ma man waxuma loolu de. dama ne. nga génneel ma vidéo. moom bu muy waxee loolu doo ko génne. te boo ko génnee. mën nga koo taqaleeg sama wax ji nii. nga vaar ma comme ni ko nit ñi di wax xam nga lu tax Youssou. parce que monsieur le ministre maire Gallo Ba mhm. dafa deful dara ngir politique. Mhm. Youssou ñun dañoo ma moom mhm. tey jii dañoo ànd ak moom nekk ay xale. muy veiller ci suñu avenir. tey monsieur le ministre maire Gallo Ba xale bu ànd ak moom. boo neree teg yoon daan yaakaaruma la ci lii leen lay dëkkal suñu nopp yi xeexloo ma leen. xulooloo ma leen. ñi ci jàngut damaa bëgg ñu jàng. ñi nga xam ne jàng nañ ñu yokk seen jàng. parce que ay cadre laa bëgg ci yéen mais soxlawuma ci yéen ay xeex ak ay xuloo yu bases yooyu bëgguma leen cee dégg. Mm-hmm. ak wax ju ñaaw. Mm-hmm. lu ci waaye def yaa ko defal sa bopp mais monsieur le ministre maire Gallo Ba. Mm-hmm. xeexloowut kenn xuloowut kenn. te ba pare prétexte mënewut benn action ngir politique tax. day def te yàlla tax ak liggéey liggéey bu baax. parce que stade bi yaakaar naa ne li tax mu ne. duñ ko tijji dañ koy téye ba stade bi pare. parce que stade bi am lu des gis nga tey jii stade bi liñ xaar. Mhm. moo ëpp li ci des. mais mën nañ cee football quand même. mën nañ cee football. stade bi bañ ko jëlee ba miire ko mu nekk suuf lalaguñ ci gason lañ ci mënoon a football Mbàkke ba mësta am stade bu am gason mhm. kon boobu bañ ci sampee camp. Mhm. mu am grille de clôture camp yi sax jaru ko ndax mënoon nañoo ut ay fer sampal suñu bopp ay camp lañ ci mënoon a mais bu ñuy wax stade stade bu jaar yoon moo tax te tamit galo loolu noonu ku ko xam xam liggéeyam. Mhm. xam ne kii nii noonu lay doxee parce que c'est un administrateur. Mhm. liggéey dafa jaar yoon. Mhm. stade bu ko kii liggéeyee ba pare dañoo war a wax li ñuy dafa am ay norme yu ñu ko war a réceptionné tey jii ñoom li ñuy wax. am na loo xam ne nii tey jii entrepreneur bi liggéey ba pare bu ñuy réceptionné stade bi ay techniciens dañoo war a taxaw dañoo war a ñëw taxaw ñu xool marché yi parce que marché ku koy gañe ni marché di doxee danga naan gazon bii laa fay lal turbine bi laa fay defar mhm. grille de correcture bi laa fay defar léegi lii mhm. mais ay techniciens dañuy ñëw ay ingénieur xam naa daal diggante diggante galaw ak non buñ koy réceptionné non dama bëgg nga déglu moom ma àggale buñ koy réceptionné ay ingénieurs ay ay ingénieurs temps bi mais ñu leeral wax dëgg bi même bu ci jaree ñu dagg ko foofu ñu dagg ko foofu noonu pour mhm. nit ñi xamutoon xam xam nga parce que nekkuñ fi di toog rek pour wax pour wax bëgg wax mais nañ wax leeral nit ñi xam parce que tey jii marché dafa am nu muy demee ñu xamaale ko waa Mbàkke xam ko tey jii nii émission bi temps temps lay jël waaw mais même bu yemee ci lii baax na mm-hmm. même bu yemee ci lii baax na gis nga gazon bi mm-hmm. technicien day ñëw mm-hmm. ñëw nekkat ñu ubbi kaye euh, bi xool ne moom kat ba muy gañe marché bi dafa waxoon gazon tel la fi lal ñu vérifier est-ce que gazon boobu la fi lal technicien boobu xool vérifier dem ne gazon nangam clôture bi ñu xool stade bi ay ingénieur ñëw ñu réceptionné ko mhm. mais nañ waxante dëgg lool lool yëpp bu ci amul tamit yuusu nan lañ mën a jëlee stade bi ko tijjee diggante maire Galaba ak ndaw ñi dafa mel ni daal am na njaw ma ngi ci des na aw xambit parce que ndaw ñi bëgg nañ conseil communal de la jeunesse mu tëj ko mu bëgg football ci stade bi mu tëj ko waaw Youssou conseil mais Youssou conseil mais Youssou conseil communal de ndaw ñan. Hmm. Youssou la majeure partie majorité ndaw ñi. Hmm. ci Mbàkke. Hmm. ministre maire Gallo Ba lañ àndal. foo ko teg te fu mun dee ñu dee fa. mais parce que Youssou yaa ngi ak say bët si nga xool ko Mbàkke bu dee mille la. huit cent personnes yi wala neuf cent personnes yi monsieur le ministre maire Gallo Ba lañ fi àndal te li ma la mën a wax te li ma la mën a wax mhm. je défie quiconque mhm. amul kenn ku fi mën a def dara mhm. loo xam ne organiser ko muy lu mu mën di doon nga nga organiser ko maam am ci deux cent ndaw deux cent ndaw yoo xam ne nii ànd nañook yow yéen a koy nax de Mbàkke ba nax man Youssou weesu naa fu may naxee kenn man Youssou ku ma xam xam fi ma juddoo xam fi ma bokk di doomu honorable député Fatma Diop xam ne duma nax kenn. loolu moom leer nañ. du ma gëmloo kenn itam tamit lu amul. Mm-hmm. ndax man dëgg lay wax parce que xamal tax Youssou. Mm-hmm. parce que man dëkk bi damaa juddoo fi ma war a juddoo. Mm-hmm. juddu fekk samay waajur di jëf ci dëkk bi. man j'ai pas droit à l'heure li ma war mooy am engagement ci dëkk bi ak di jëf ci dëkk bi. loolu leer na ñu dégg beneen question. mooy place publique bi nekk euh, jàkkay Tijaan bu ñu ko mënee wax. waaw foofu moom gars yi nee nañ kenn mu jël ko sànni ndax nee nañ 30 millions la fa des gars yu bëri nee nañ nekk sax mu 3 millions yan kàddu nga ciy yëkkati. waaw mais loolu noonu bu ko gaa yi waxee xam nga man damaa nekk nit koo xam ne lan moo waral ba léegi inauguré guñ place publique ba. parce que parce que non non mën naa pare waa jañ ko waa ja gañe woon marché ba. Hmm. dafa yaakaaroon ne maire yi fi daan jaar ak maire bii nii ñoo bokk. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. pare na waa ji liggéey na ba pare. Hmm. parce que masse prix boo fa jaaree xam ne fu ñu dem ba teg ay pot de fleur def ay coquillage ak yëpp xam nga loolu pare na. dafa liggéey ba pare ñu ñëw li ma lay wax réception. Hmm. ñu ñëw xool ne lii la waxoon la fiy def. def fi leneen lu bon ñu ne ko lii nii nga waxoon nga fiy def te defoo ko fi liggéeyaatal affaire bi. problème bi mooy il faut aller vers la bon information outil information bu baax. xam nga li ma la waxante ni. Mm-hmm. mais gars yi waruñ di wax pour bëgg a wax wala di wax pour yàq parce que mm-hmm. loolu baaxul. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy déglu nañ leen respecté tuuti di wax dëgg bi. xam nga kii dafa jàng administration. xam ne administration doxee. doxut ci anarchie. doxut ci maanaam def ngir def ngir politique parce que kii. ba muy defal mbàkke lu baax boobu politikul. boobu nekkul maire. xam nga mhm. dafa yàgg a sonn ci Mbàkke mhm. démb tey soog a ñëw Galo nekk na un directeur national mhm. avant 2012 ah, mais papa yi nga xam ne ñoo ngi ko teg ci place publique bi mu mel ni ma ngay tasaaroo mu mel ni liggéey rek ngeen def musu leen mënu mënu leen fexe ba commencé liggéey bi loolu tamit liggéey bi kañ lay kañ lay waaw papa waaw papa yi mooy li ma lay wax Youssou dafa am loo xam ne nii day dépasser mairie parce que papa yi loolu tali yi ñuy defar ci dëkk bi Promoville moo koy defar ah, loolu ay projet étatique la ah, non non mais le maire moo décroché projet bi ñëw andi ko fi de par ses relations lu parce que loolu noonu Promoville la parce que nee nañ bala ñuy ñoom defar pavage yi dañuy former ndawu Mbàkke ci ni ñuy poser pavage ak ni ñuy defaree pavage mhm. tey jii ndawu Mbàkke dañ leen kii ba pare jël ay ndawu Mbàkke ñuy liggéey ci projet bi mhm. mais tamit projet du dangay ngay xëy xëy rek mhm. tey projet bi ñor na nga bëgg ñëw liggéey ko tey dafa am ay projet yoo xam ne nii dafa am yoon da nga naan un ne deux ne trois àdduna hmm. lépp loo gis escalier la mais hmm. doo xëy xëy rek naaw àgg fenn. Hmm. loolu amul fenn. école de ñu ne Auchan def na ci 30 millions wala boog 30 millions la ci Auchan war a def ñu gis classe yi classe yu bëri yàqu na lu mat six classes rek lañ lañ karo est loolu tamit yenoon na maanaam. yuusu même bu doon benn classe la ñu karaw. Mhm. waa Mbàkke war nañ cee sant gërëm ci. xam nga lu tax non déglu ma ma àggali non may ma ma àggali may ma ma ñëw. non ah? RSE kañ ngeen ko xam RSE xanaa ci monsieur le e a. waaw e. mm, mm. mm-hmm. e, mm-hmm. ministre maire Galaba. non non ah, fii ban entreprise moo fi mës a ñëw def dara ci Mbàkke. moo fi mës ñëw def dara ci amu fi 30 millions. mais euh, non non mais dama ne waxuma 30 millions bul xeeb dama ne xam nga nit ki lim la yëkkati lim la may nit kenn du xuloog moom ci alalam. si suñu alal non seulement alal la. non yus da ngay déglu RSE. du mm-hmm. question de dëgg la suñu alal la. Mm-hmm. mais dafa am nu muy doxee parce que entreprise tamit bul fàtte ne bu dëkkee ci dëkk bi. Mm-hmm. day fay taxe. di fay leneen ak leneen ak leneen ak leneen. RSE bi entreprise yu bëri ñoom ñoo ko am. parce que bu ñu nekkee ci dëkk bi dañuy contribuer ci dëkk bi. soit ci ay di leen jàppale ci ay affaires. wala di leen tabaxal wala di leen rénover wala affaire yooyu noonu. kon entreprise bi yaakaar naa ne loolu noonu dara forcé wu ko mu def ko da koy neex mu def ko. comprendre nga. da da koy neex mu def def ko. fu ko fu ko bind. dara non mais dara forcé wu ko ci. dara comme ça wa dara forcé wu ko ci. mais mais Youssou ah Ousseyn ñëw suñu dëkk. ñu dox ko suuf. waa mais daa ko suñu suuf waaw mais daa ko yoon wax ne dafay war a def ay RSE yëkkati koppar. def ko sax école Youssou da cee non RSE Youssou dama ne oh. RSE. Mm-hmm. Mm-hmm. encore une fois. Mm-hmm. entreprise yi ko am bëri mhm. entreprise yëpp boo xoolee fii Mbàkke bëri ay entreprise yu fi nekk Youssouf. mais dama ne entreprise yooyu noonu. Mhm. est ce que mës defal dara Mbàkke RSE bu ko xamee c' est grâce à le ministre maire Galawa parce que xamal tax. Mhm. parce que Auchan moo fi ñëw mu négocier ñoom. suñu ñëwee loolu loolu. ne ñun da bëgg dugg si dëkk bi d' nañ da ngeen dugg si dëkk bi parce que boo leen fi duggee baax na dina yokk amee monsieur le ministre maire Gallo Ba moo tax. te dama ne buñ ñu defaraloon benn classe sax. sant nañ ci gërëm nañ ci parce que xamul tax. parce que yaakaar naa ne lépp compte boo gis ci benn la tàmbalee te nee nga ma defar nañ fa six classes karo nañ ko rénover nañ ko defar nañ ko. mais karo nga ma wax de karo rénové ko defaraat euh, tu euh, toiture bi non si mm-hmm. euh, kaw li ko li ko li ko yëg mm-hmm. xam nga mm-hmm. loolu yëpp defaraat nañ ko nañ ci sant yàlla te xam ne kat entreprise bu fi duggati wala entreprise yi fi nekkoon bu njëkk xam ne Mbàkke am na changement maire bi fi nekk ak yeneen maire yi bokkut. képp koo xam ne li nga fi war a def ci dëkk bi ak taxawaay bi nga fi war a am. di nga ko fi taxawee di nga ko fi def insha allahu rabbi. man de maire Mbacke Ngonem yi jaaxal nañu ñu ñëw ci beneen question. ñu hmm. dugg si si jàppandaw euh, ñu door ak euh, ay mouvement yoo xamante ne bi ñoo ngi ko nam ma amal ci samedi ji. yam ak septembre ñu bëri ne mouvement boobu ay sportif ñoo fa nekk président FC Baol war a def ci Amadou Ba ndax am nga kàddu yoo ci yëkkati. waaw Youssou dama koy faral di wax avant d'être étoile dans le ciel il faut d'abord être lampe chez soi yaakaar naa ne nit ki mënoo di woote ne yow biddiw nga te mënoo nekk lamp sa kër problème bi mooy cest waaw c'est-à-dire wax ji cax la damay bàyyi gars yi ñu décortiquer ko seen bopp parce que xamal tax da bëgg a wax ne ku mënta yéegal équipe nawetaan mu waroo fee waaw bay bay bay bay wax ne da ngay bàyyi problème bi mooy mbàkke nañu yeewu xam nga lu tax mhm. ndax ñun mbàkke yaakaar naa ne ku xam ministre maire Gallo Ba mhm. xam nga ne laajut Mbàkke mhm. ngir am alal mhm. laajut Mbàkke ngir ami poste ndax yaakaar naa ne nit koo xam ne bi muy amee poste avant 2012 de par compétence par jàngam jël nañ ko def ko un directeur national mu nekk DRH au niveau du ministère de la santé ñu jugeeti waaye foofu Macky Sall ñëw fi xool liggéey ba mu liggéey ministère de la santé mu créer SOGIP un budget tout nouveau jël ko jox ko ko mu liggéey jam ñaajo liggéey bu euh, euh, rafet ak bu mucc ay ba mu fa liggéey mm-hmm. ñu jëlaat fonction publique bëgg ko ko bëgg ko dañ ko jox ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public bëgg a transformer secteur public xam compétence am xam xarayaayam mm-hmm. ñu jox ko ko mm-hmm. kon dama yaakaar ne kooku joxuñ ko benn postu pour ay affaire de base politique wala pour affaire yooyu noonu de par ses lañ ko ko joxee xam nga gaa yi nag waa Mbàkke nañ yeewu. Mhm. parce que dafa am ñoo xam ne nii politique dañ koo jël def ko tremplin de réussite. Mhm. dañ ko jël def ko tremplin de réussite encore une fois gaa yi ay mouvement yi ñuy créer mhm. mais Mbàkke mën naa ne bato la fi mu toll nii mouvement bi fi am sens mouvement wu Mbàkke la xam nga muy lan muy àndandoo suqali Mbàkke mais gars yi bi Mbàkke di sonn ci taataawu ndox yi mhm. anañu bi Mbàkke di sonn ci ci ci lëndëm gi mhm. anañu ay doomi Mbàkke am mais doomi Mbàkke d'accord non mhm. tout le monde a droit de faire de la politique mais faisons la politique en son no ci définition bi nga xam ne mooy politique mooy une bonne gestion de la cité mais politique la définition de la politique loolu lay signifier mhm. la politique c'est l'art de bien gérer la cité mhm. mais gars yi ba nga xamee ni nii cité bi dafa nekkoon ci ay njàqare mhm. nekk ci lëndëm nekk ci inondation yi nekk ci taa yi boobu yuusu ñun ak yow ñoo àndoon ci yoon bi ci inondation yi boobu anu gars yi problème bi mooy gars yi kay nañ ne tàmbaleeti nañ politique taxaw na euh, euh, xaalisu campagne dina génn ñu pare pour laaj xaalis mais na je lance un appel au premier ministre muy le mini le premier ministre Amadou Ba xamal ko ne ko Mbàkke encore une fois niñ falee Gallo Ba ci élection locale yi ba nga xam ne nii dañ ko fal mu am 8000 voix ki topp ci moom di deuxième amul sax la moitié de ses voix amul sax mille voix 3000 et quelques voix la am xamal ne Mbàkke dafa yokk ndax monsieur le ministre maire Gallo Ba liggéey yim liggéey Mbàkke ak taxaw bi mu taxawu ndaw yi Mbàkke Mbàkke ñi nekk ci ginnaaw monsieur le ministre maire Gallo Ba dafa yokk encore une fois gars yi dañu jël politique def ko tremplin de réussite ngir ay laaj xaalis di teg ay mouvement di chantage ak yooyu pour bëgg ay faloog ñenn ñi nga xam ne am nañ ay entreprise bëgg ñu leen di wàññil seen i taxe duñ fay ak yeneen ak yeneen ak yeneen Mbàkke ñi ngi ci ginnaaw monsieur le ministre maire Gallo Ba tey ñi ngi ci ginnaaw monsieur le ministre maire Gallo Ba ëllëg xam nga li ma la wax gars yi Mbàkke tamit nañ yeewu la population mbackoise nañ yeew nañ xool ba ñuy nekk ci jafe-jafe xam ne ñooñu gisuñu leen woon xamuñ leen woon gars yi ñoo ngi nekkoon seen donkaasi ga nekk dakaar am na ci ñoo xam ne sax kër Mbàkke xam nga yuus gars yi nawloowuñu am na ñoo xam ne ginnaaw seen kër yaay ak seen kër papa amuñ kër Mbàkke te mën nañ koo am kon nawloowuñ waa Mbàkke sa kàddu gu mujj émission bi jeex na waaw sama kàddu gu mujj foofu rek laa koy yeggalee di gën a développé ci ma waa Mbàkke nañ yeewu xam ne ki nga xam ne dafa ñëw ne kaay leen ma dimbali leen kaay leen ma dimbali leen am ay ndombal tànkam boobu duggagutoon ci politique di ànd ak ñun ba tey ñu koy fal maire mu yor dëkk bi mhm. bokkut ak ñi nga xam ne dañoo ñëw ci Mbàkke di leen dimbali koo mhm. di caméra waa Mbàkke mhm. di ko jël di leen dajale di leen yóbbu pour di def ay kii pour ñu leen di jox ay xaalis ñuy ñëw fii di yàqate loolu jeex na Mbàkke xam nga conscience yi éveillé wu na gars yi xam nañ ñan ñoo mën a defar dëkk bi ak ñun ñoo mën a jëriñ dëkk bi nga li ma ay mouvement ay yii yëpp man góoma yooyu damaa mm-hmm. gëm ne monsieur le ministre maire Galab bu fi nekkee di liggéey dëkk bi uh-huh. dañ koo war àndandoo jàppale ko mais ñoom mais ñoom nañ ñëw jàppale monsieur le ministre maire Galab ba Mbàkke jëm ci kanam xam nga émission bi jeex na ñoo ngi sant ñëpp mm-hmm. di gërëm ñëpp mm-hmm. xam nga li ma xamante nii di lancer un appel waa Mbàkke aussi na ñëpp ñëw àndandoo topp ci ginnaaw monsieur le ministre maire Galab ba ñu fal suñu premier ministre Amadou Ba ci élection présidentielle yi ñuy jublu au premier tour incha allah merci beaucoup